tase fii pour ñaareelu yoon parce que le 28 ak le 29 décembre tase woon nañ fi ci benn première session bu ñuy wax euh, boo xam dañ ko defoon pour acte 3 de la décentralisation pour xamal élus locaux yi surtout ñi nga xam dañuy doog fal bu jigéen ñu bëri ci torop nag ndax euh, li ñuy wax parité tax na ñu bëri mosuñu woon xalaat ne dinañ nekk conseiller tey nekk nañ mais nekk boobu taxul ñu am euh, compétence yi ñu waroon am pour nekk conseiller donc bii passé wax nañ ci lan mooy acte trois lan la inno yan innovation la indi ak yan perspective mais tey dañu ñëw surtout di wax ci naka la processus lii ñuy tuddee processus de budgétisation ak li nga xamante ni yan mécanisme la nit ñi war a tëral collectivité locale yi war a tëral pour euh, di financer l' trois de la décentralisation communes yi daje fii nag tey foog naa yu ci bëree bëri seen problème mooy seeni moyen bëriwul par rapport ak charge yi nga xamante ni acte trois daf ko indi ñu war ko gàddu ba pare personnel bi ñu war a am ñu war a recouvrer les impôts en général amuñu ko ndax amuñu moyen yu ñu war a fayee personnel boobu nga xam ne ñoo ko war def donc seen koom daal bëriwul surtout boo xoolee les petites les communes rurales nga xam ne boo xoolee département de Tivaouane ñoo ci ëpp donc dañ fi tase ñaari fan yi daal pour waxtaan naka la ñuy def ba nga xamante ni acte trois bi dinañ ko financer par impôt locaux yi nga xamante ne dinañ ko mën a collecté ak naka la ñuy def ba impôt yooyu ñu koy collecté tey nag mbégte la ci ñun ndax te suñu partenaire yu am maanaa dañ fi nekk muy euh, l'adjoint au au maire de Parme muy aussi le chargé des relations internationales et de la et de la commune de Parme muy aussi la présidente de Mani muy aussi le représentant de du centre universitaire pour la coopération de l'université de Parme donc daal yaakaar nañ ne daal essange bi dina jur njariñ bu bëri surtout li ñu bëgg mooy fexe ba jumeler ay villes yoo xam ne ci région de Thiès lañ nekk ak la commune de Parme ndax bu ñu jógee Pire dinañ dem Thiénaba dinañ dem yeneen communes yoo xam ne ci région de Thiès lañ nekk ni ville de Pikine nekkee jumelu ville de Parme lu ñu bëgg mooy fexe ba am benn réseau de ville dans la région de Thiès ñu nekk ay jum ay jumelles de la ville de Parme loolu daal suñu yitte tamit te loolu moo leen tax a yëkkati tamit.